point muy coow li nga xam ne moo am fële ci Azer wala suppose scandale bi nga xam ne jur na jiixi jaaxa si li nga xam ne nag moo di xelu ñenn ñi ba noonee nga gis li nga xam ni moom mooy APO Espagne daal di porte li nga xam ne nag moo di plainte contre li nga xam nag moo di APO bu bu bu Sénégal ci wet gi aussi nga gis ki nga xam ne moo di Seydou Kane daal di déposé li nga xam ne nag moo di benn benn benn sommation interpellative ki nga xam ne nag moo di Jean Michel Sène pour rek nu mën leeral coow li nga xam ne moo am am fële ca ca Azer moom Seydou Kane mi nga xam ni euh, dafa jàpp ni kii di Jean Michel kaddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko fële ca Walfadjri que ni carrément bu fa ñëwee euh, poto yi nga xam ni mooy poto euh, ciment yi daan jar li nga xam nag mooy 200000 jàpp li nga xam nag mooy 800000 daanaka 1 million la koy taxé lii di Sénégal yan leeral nga mën apporteel si coow li nga xam ni wala scandale bi nga xam ne ñeneen jàpp na moo am fële ca ca ca Azer. dafa dafa dafa doy waar quoi franchement ça c'est un scandale. di uh-huh. affaire bi qu'on le dise ou non. Uh-huh. scandale bu rëy la. xam nga ñii ñëpp boo gisee ñu nekk fii di wax. Uh-huh. c'est parce que la justice est en de faire son travail. waaye bu duloon loolu. ça ça peut ressembler même à du banditisme. xam moom laa lay wax ma ne la les sociétés sénégalaises. da nga gis koo xamante ne day créer société ah. def tout ba gagné benn marché au nga exécuté nga dem tayalee ko ah. moom paawu Sénégal la lu mu dem wuti paawu fële Espagne Espagne ah. soo ko mënul bàyyil keneen jël ko lu tax paawu bële porté ko plainte moom il faut que aussi ñu waxtaan mu leer ñoom ñaar ñoo doon collaborer gagné na marché Sénégal mu dem ci kee ne ko man de gagné naa Sénégal ba pare yow mu dugal la ci mbir moo xamante ne dafa doy waar c'est à contre de l'économie sénégalaise. Mhm. mu ne ko dinaa la jàppale waaye foo nga ubbi compte bi fii Espagne. Mhm. compte bi lu tax ubbiwoon ko Sénégal. Sénégal ubbi compte bi Espagne Jean-Michel Sène. Mhm. un jeune de vingt neuf ans ñu fal ko directeur général mu ñëw mu saytu am lu mu gis ngeen ne noonu li nga gis amul. ah dañuy normal bopp sénégalais. vous pensez que aujourd'hui un directeur général comme moi par exemple man dinaa ñëw toog ci sama ci ci li ma gis may toog di wax ay kasaw kasaw. je suis vraiment désolé. Jean Michel Sène dafa am lu mu gis lu normal lu tax. moom mu nangu jógee ci nombre de villages ya mu waxoon. ñu yokk le nombre de village nombre de poteaux ya ñu waxoon. ñu yokk le nombre de poteaux. Uh-huh. lu tax ñoom ñaar ñi ñi ñi ñi xalabante paw Sénégal ak paw Espagne. Uh-huh. ndaxte yow paw Sénégal yow yaa doon dunguru bi yow boo ma gagné Sénégal nga ñëw man man ma jàppale la. Uh-huh. waaye yow yow bu fekkente ne amul mooy li amoon ci kii bi rek ci ci miin yi nu mu tudd euh, avec Aliou Sall. loolu c'est la même mooy que ni. Euh, Silla dafa jege directeur nangam xaaral ma jaar ci moom pour gagner lii. ñu jox ko après mu dem tayle ko keneen c'est ce qui s'est passé. loolu moom corruption la. mu ngi noonu. Hmm. donc ce qu'il faut dire à ce niveau-là c'est que aujourd'hui tous les jeunes sénégalais j'ai entendu quelqu'un di ko di ko quelqu'un le dire. Hmm. tous les jeunes sénégalais les étudiants de l'université kenn ku nekk da nga war a génn nga def motion de soutien à ce jeune sénégalais. Hmm. de 29 ans seulement. ñu dénk ko lu mel ni ASER mu ciy def liggéey bu am solo di di di indi li nga xamante ne moom mooy euh, di di di garantir aujourd'hui la souveraineté du Sénégal poto buy jar ay deux cent mille trois cent mille yow nga koy jaay ay un million ba pare ñu ne c'est quelque neuf cent vingt huit villages jógee ci loolu mu dem ci plusieurs villages ñu ne mille sept cent xoma poto mu jógee foofu de 1100 poteaux mu dem ci 1750 poteaux. Uh-huh. pour que les villages soient électrifiés waaye yemu ci mu ne yow société d'accord naa ci marché bi parce que fi laa ko fekk waaye dama koy revoir. Uh-huh. parce que loolu la waxoon loolu la président premier Ousmane Sonko waxoon loolu la premier président waxoon mu ne de son premier discours euh, moom président de la République. Uh-huh. Euh, son discours bi mu defoon à à mais bi mu prêter serment. Uh-huh. mais waxoon na ni on va revoir tous les contrats. yu uh-huh. Sénégal signé oui ça fait partie des contrats. le directeur général Jean-Michel Sène ñëw. Uh-huh. xool contrat bi xool li ci ne mu xam ne sa va à l'encontre des intérêts du Sénégal mu ne leen non seulement da ngeen di damay yokk village yi. dañuy yokk poteaux yi mais également vous allez former deux jeunes sénégalais. ba ñu mën a defar poteau. nga xam ne demain on va pas faire appel à vous. oui euh, transfert de compétence. transfert de compétence. parce que ce jeune là il pense à ses camarades jeunes. qui sont aussi diplômés que luy qui sont aussi ambitieux que lui. mais amuñu opportunité boobu. léegi nag pour ñooñu may leen chance ñu am opportunité véritablement ci loolu. mu ne yow société da ngay former. sama jeune garçon yi et les jeunes filles de mon pour que ñu mën a nekk ñoo xamante nekk ñoo xamante ne dañuy xarañ. ci wàllum defaru poto poto. bu boobaa deux mille cinquante bi ñuy wax. bu balaa muy jot Sénégal dootul dem uti expertise ailleurs pour defar poto yi ñoo koy defar et ça ça à moindre coût parce que c'est produit au Sénégal produit par des Sénégalais et pour des Sénégalais. bu boobaa les jeunes ci danañ créer seen entreprise. xëy na dem Tamba Gué nga xam ne falaa laa dëkk ñuy defar foofu seen poto yi di ko jaay xanaa loolu pour un jeune sénégalais de vingt neuf ans. qui a ces idées là mais toi autre sénégalais qui pense autrement qui koo xamante ne tu tu fais contre les intérêts du Sénégal parce que li mu dem ni c'est contre les intérêts du Sénégal. ndax waru ko woon def moom Seydou Kane je suis désolé. mais euh, li ñuy def nii. Mhm. c'est juste euh, mettre de la poudre dans les yeux euh, des de des gens. mais mhm. xam na ni nu mu tudd. sommation bi mhm. c'est juste pour essayer di jéem am fu muy laqatu wala di jéem a génn ci guuta gi nga xamante ne ba kële mbokkam bee nga xam moo doon partenaire dugal na ko. mais dans tout ça la banque Santander moom ci boppam moom moo waa man ñun projet bi ngeen ne da ngeen koy amal. Mhm. ubbi ngeen compte man li ma jaaxal mooy xaalis baa ngay dugg te man gisuma ngeen commencé liggéey. Mhm. xaalis bu dugg na waaye gisuma ngeen commencé liggéey lu xew. Mhm. kon ñoom compte ba parce que moom. mooy participer ci financement bi dugal nañ ko waaye ñoom ba léegi commencé wul liggéey te xaalis baa ngay dem. mu nag ah on arrête. xaar mhm. loolu mooy indi coow li yëpp coow li beneen coow li mooy DG bi dafa ñëw mu ne ce marché là marché bii. Mhm. du continuer nii dañ koy saytuwaat moo tax ñu moo tax coow lu bari. Mhm. waaye moom ku ko déglu xam ni ak ku gis action yu muy def deful dara lu dul liy doxal Sénégal garantir aujourd'hui la souveraineté du Sénégal. parce que ce sont les intérêts du Sénégal xaalisu sénégalais yi la et on tra on doit travailler pour les sénégalais. Mhm. loolu mooy wax ci. exactement alors euh, monsieur Biagui mënoo ñëw ba dem te duma laaj euh, bërëb ba nga nekk maison maison de la presse tey jii gis nañu DG yu bëri def li nga xam ne nag moo di état des mais jusqu'à présent.